kilifa yu tedd yi fi teew noo ngi leen di nuyu lu bari dañuy teg nuyoo bi ci loxob sëñ Cheikh coro mi ci sama ndeyjoor ndax yàlla dogal na a Cheikh Mouhamadul Muntaxa xafizahu llahu wa wa ataala baqaahu fii naa moo fi yabal doomam jii di sëriñ Souhaïbou sëriñ Abo man ma xëyee poroxaan ci daaray maam jaara ñëw fi kàddu gii ma ame kàddu sëriñ Abo Madiane Jaxate la mi nga xam ne mooy directeur général lu daara yi Maam Jaara sëñ Abo dafa am ngant ki ko waroon a wuutu ci ngant li mooy soxna maam Awa Dem soxna maam Awa Dem dafa am ngant ndax liggéey liggéeyi daara ji ñoo leen njat ginnaaw kenn laa ci ñoom ñu yebal ma ne naa fi ñëw sëriñ Abdul Ahad daaray maam jaara ñu ngi lay nuyu lu bari lool tàmbalee ko ci sëñ Abo ma fa nekkal sëriñ bi ak képp ku nekk ca dara ja di fedd li seen kóllëre sa diggante ak ñoom yaa ngi bëgg yàgg ak ñoom ci ay liggéey yu ama am solo te liggéey yi defin wi rafet lool ndax ndaje mi ba nga ko tàmbalee wooteeg léegi balaa bis bee egsi da nga ñëw ci daara ji nemmeeku ci daara ji siq ak nun li ñuy wax expression de besoin mooy ñëw na lu ngeen soxla te su soo dikkoon ci nun seet si nu loonu indil danañ ko jël ngir xam nañ ne soxna jaar a tax nga indi ko waaye da ngay jóge ndakaaru ànd ak mbooloo ñëw wàcc si poroxaan nuyoog waa daara ji laaj lan la daara ji soxla su ñu la ko waxee boo delsee ci dëkk bi la nga ca man lépp danga ko def la nga ca mënut danga ko yéene loolu moo waral bi bis bi taxawee Cheikh Mouhamadul Muntaxa jox la ci yitte ju rëy yitte ji mooy bu ko ko jotam mayoon appel bi moo koy defal boppam waaye Cheikh Mahamadul Bachir mi nga xam ne moom la jox kàddoom daf laa jox ndigal nga dem ci moom mu defal la appel bi bis bi ñëw mu yabal fi doomam jii di Serigne Souaib ngir yi ci daje waaye Serigne Souaib bu ñëwee fekk fi sëñ Cheikh Thioro mi nga xam ne doomi Serigne Mountakha la ndax doomi sëriñ Bassirou la moom Cheikh Mahamadou Lamine Bara te sëriñ Basiru xujja lu ne ci moom sëriñ Basiroo ko ci def boo ko fi foo ko fekkee muy sa kilifa sëñ Cheikh Coro dafay dal di yor baatu sëñ Muntaxa boobu ci wuutu ko fii ci jataay bi muy lu am solo ndax rendre nga ci hommage soxna Mariyamu mi nga xam ne ci mag ñi njëkkoon a ànd ak Cheikh Mouhamadul Muntaxa la làqu nga di ko ci rendrale hommage loolu Cheikh Mouhamadul Mountakha mu ngi la ciy gërëm ci turu kilifa yii fi toog te doon ak njabootam wax ji nag jërut muy gudd ndax mel na ne li ëpp solo sëriñ Gana Messere Mokhtar wax na ko muy taarixu soxna jaar jërut jaaraat mel na ne àddina xam nañ ko boo ci jaaraatee répétition rek lay doon muy fa mu juddoo ñi ko jàngal fi mu yaroo waaye li am solo mooy poroxaan ga nga xam ne fa la tëdd cosaanoowu fa lan moo tax kon ñu mën a dégg porox turu poroxaan ci biir dëkki Saalum yépp mu mel ne boo doon seet poroxaan Gàmbi la gën a jege ci Sénégal ndax bu nit xëyee woon poroxaan jëm si Touba yor oto bu baax lool nga xëyee poroxaan jëm Gàmbi yor oto bu yembe maay yow miy jëm Gàmbi yaa koy njëkk a àgg kon ki valorise poroxaan ba tax poroxaan ràññeeku ci biir dëkki saalum yi te doon ab dëkk ne dëkki saalum yi soxna jaara ma fa tëdd ko waral loolu manees na ko misaal ci bu gaaw kenn ku ne xam na ne madina al munawwara sayxul xadim ci mbindam wax na ne yonent bi tëdd ci seen biir moo leen may fawz biñ nekk texe gi ñu nekk ahlal madinati noonu la ko bindee minni sarmadan lakumu abqa salaamin yutibu alxalba waljasada laa ziltum addahra fi safwin wa tawsiatin yakfikum allahu fi daarayni man anada fuztum bi kawni bni abdillahi jaarakumu wa kawnikum xawlahu faltaxmadu samada kon tëraayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir madina moo gënal madina ci pàkki xijaas yépp kadalik kone xam na ne tëraayu Cheikhul Xadim ci Touba ci la gënale pàkki suuf yi ci kaw suuf yëpp kon tëddug soxna jaare ci poroxaan moo tax poroxaan gën pàkki Saalum yëpp moo tax noon dong la mën a deme mel na ne xasida gi sëñ Gànna Moxtaar doon jàng léegi wax na ko ci soxna jaare jëratul ñuy répété taarixam waaye qualité yi mu amee ba tudd jaaratullahi nga xam ne garaat la du tur ndax sayidatuna Maryam mi way juru yonent yàlla Isa lañ ko tudde ñu nuroo lu bari nuroo ay at fa xaddu kulli musamman min sumaahu sama la sëñ Tuubaa bind buñ la tuddee nit danga jël ci ñoom moom juróom-ñaari jikko jël na ci soxna si soxna Maryam ay at waaye jël na jaam yu nu yàllaam ndax damay wax ne soxna si ginnaaw may yi ko sun boroom may day koo xam ne li mu jëf ni ko jëfee moo jafe ci koy liggéeyal yàlla bi ci ëpp solo mooy tawfeex jëm nu defal ñun ñi nga xam ne sëñ Tuubaa mooy seen kilifa mooy dimbali ñu ci lu ñuy tudde xefzul xayb muy nëbb kumpa fa saalihaatu xaanitaatu xaafidatun lil xaybi bi ma xafidallah muy sëñ tubaa risaala iya ilaahiya la boo xam ne dafa am fu ko yàlla bëgg a denc te kenn sañu te jàng leetar bi te waxtoom jotut mu denc ko ci soxna jaara buso radiallahu taala anha préparé ko ci diggante bu gàtt mu mu jàng teel xam xam diine peg ko am cëru boroomam waaye mu làq cër bi ci ginnaawam damoowu ko ki ko yàlla booleel muy sëñ Mor mu topp ko di ko suturaal di ko wormaal di ko dimbali di ko jàppale ba ndam li feeñ ci kaw ni mu doon liggéeyale sëñ Mor ndam li dégg ngeen ko ci sëñ Gànna ni mu ko jàng ci xasida gi bi ki sana wa rida wal faxru tabshiratan qad xaaza ibnuki maa lam yaxwi labrara yow soxna jaara bu la neexee damu yaa yayoo aw tagg ndax lëggéey nga ba sa doom ji may yi ko yàlla jox ñi ko jiitu li ñuy baax baax mësuñu koo am loolu soxna jaaraa ko wax waaye sëñ tubaa ko fedd lii ilayya qaada allahu ma lam yakuni wala yakunu abadan li mumkini moo tax sëriñ bi war maa loon lool soxna si wax nañ ne bi muy nekk ci résidence surveillée yi muy Mauritanie di Ceyeen dafa xàmme woon lahja Saalum Saalum mooy Saalum Saalum yi ñu baal ma bu fekkee ñu ngi fi ni ñuy waxee mooy xay-xay faay def nangam sëñ Tuubaa da koo xàmme woon ngir li soxna jaara tëdd poroxaan ba benn bis sëñ Aliou Seck wanaar ci mag yi sëriñ bi la ne ko waaw sëriñ bi soxna si xanaa may yi dafa rëy li nga koy tudd dama gis mu bari lool sëñ bi ne ko may yi ngeen gis ci man ba mu jaaxal leen ginnaaw sama liggéey ak dogalub yàlla liggéeyub soxna jaara tax ma man cee jot ndax day koo xam ne dafa dencal sëñ Touba sekkareem Cheikh Mouhamadul Bachir wax na ne bi ma ko yoree rek la xam ne ànd naa ku doy waar waaye mu tëye lamiñam mosu koo nettalil dara ba fi mu feeñee te circonstance indi ko ngir mu feeñ muy néegu dakaar bi ak pax mi sëñ gàmma gànna doon wax léegi néegu dagaar bi la ko fa soxna jaara wax mën nañ cee jàngate yu bari ci darajey soxna jaara ju kawe ndax doom ni mu neexee ginnaaw sëñ bi kenn xamul lu mu doon ku du sunu borom waaye lu mën a xew rek doom la te doomam doom ni mu mettee ñu teg ko ay nattu tooñ ko génne ko yóbbu ko ci néeg ya ngay dem na jameet ci xar kanamam bàyyi yàlla xel ba bi nga jàkkaarloog moom yi ko dal li muy metti metti sa bët gisu ko li nga ko wax rek mooy sama doom na nga fàttaliku ne bis bi nga feeñee ci samay loxo ci nga wax ne danga nga jaamu yàlla lu ko kenn musta jaamu ci kaw suuf da nga lëggéeyal rasulullahi lu ko kenn musta lëggéeyal ci kaw suuf ah matal kóllëre war na rawatina kóllëre goo xam ne yàlla nga ko séqal te na nga xam ne lii la dal lu ci toppati mooy gën a metti xoola jooju jom ba ni mu tëddee poroxaan ba ni mu tëdde poroxaan señ bi di ko bàyyi xel di wax ne barab ba nañ fay dem te di fa ñaan yàlla dana fay nangu ñaan magi saalum yi mu amoon mu di leen digal ñu di fa dem di ko nemmeeku sëñ Babacar Jëbu Njaay moom la wax sëñ bay Mbuuma sëñ Moussa Paté Dramé ca ma ba Awa Njaay ca kër Maba Awa taalu bépp sëñ Tuubaa bu ñuy wax sëñ Baara Taal jóge feto ñëw fekk si sëriñ bi jolof sëñ bi ne ko maa ngi lay yóbbante ci ñii ku ñuy wax baaba kër Jëbu ca muuma ku ñuy wax Moussa Paté Dramé ca Pakacaar ku ñuy wax ma Maba Awa Njaay kër ma Maba Awa soo demee nga waxal ma leen ne leen nañ dem ca sama barabu jur wa te nemmikul ma ko sëñ Baara Taal ñëw ba Pont mu taseeg sëñ Babacar Jëbu jóge muuma jëm Kawlax mu wax ko ndigalul sëriñ Tuubaa li mu daal ne kuj dëpp fi saase murid yu jëkk yaa ngoog sifaatu saadixil muridi bi ixtisaar arbaatun nadamtuha xawfa ixtiraar asidqu fi mahabati cheikhi abad summa imtisaalu amrihi xaysu warat daal di dëpp wax leen ko ñu di fa daje ajjuma ji mujj ci weeru tam xarit bu ñu amee am xar rey suñu amee bëy rey bu ñu amee laax togg waaye amuñu mbooloo mu ko mën a lekk ba Basiru jot ndigal directement lu bàyyi ko ci sëñ sëñ bi woolu ko mu ñëw mu ne ko sa maam dafa maa feeñu wax ma ne dafa soxla ku ko wettili te yow laa taamu nga wettili jël ma ko dal di koy jox ay xamtu da ko ne boo demee ba barab sàngam ak ëkkug janaa nga fa sëñ wax ak moom dal ne sëñ Basiru boo demee na nga taxaw jublu jublu xibla dox juróom-ñaari jéego ci sa loxoom ndeyjoor tibb suuf ber ko ñëw ba fi nga taxawoon nga dox juróom-ñaari jéego ci sa loxob càmmooñ tibb suuf ber ko indil ma ñaari suuf yi waaye bu leen boolee bi mu ko indee sëñ Tuubaa foon suuf su njëkk si sotti suuf ne ko du sii sa maam tëddul fii dal di foon suufu ñaareel si ne ko fii la fii la sa maam tëdd sëñ Basiru dem ba war a réhabiliter Poroxaan parce que denc na suuf si ba delloo ko fa mu ko jëlee woon bi mu demee ba réhabilitation bi des ci bi muy dem watiiru fas bi ñuy wax karos ci la sëñ Basiru dugg carrosse fas la wow watiir la wow ñeenti fas a koy diri mu ànd rek ku ñuy wax sëñ Mahmoud Diané mu nekkoon ak sëñ Abdul Hakim mooy dawal carrosse bi ànd ak ku ñu wax Mouhamadou Fall alquran mooy naar bi ngeen dégg ne moom la sëñ Touba soloon alquran ci Mauritanie par ñaar fukki isib te sëriñ Chouaib bu nettali ko ànd ku ñuy wax sëñ Mët Laam ak sëñ Mbay Laam ñu ñëw ba Ñooro kër Thierno Ahmadou Ba sëñ Basiir ne Thierno Ba ndax xam nga fu barabu soxna si toll fii mu ne ko xawma ko waaye am na góor gu ne ci dëkk bi xam na ko sëñ Basiir na nañ ma ko woon ñu woo ko góor gi ne ko xam naa ko de waaye faw ñu wut ay jumtukaay yu ñu la daggalee àll bi ngir fas wi nga yor mën a am foo jaar ndax àll bi dafa fatt ñu xëyee ñooro diggante ñooro ak poroxaan tronçon bu gàtt la huit kilomètres la mais wax nañ ne bi sëñ Basiru xëyee ñooro bi muy egsi ci barabu soxna jaara ñu ngi noddu gee kon sonn na mu egsi wàcce bagaas yi daal di woo Mouhamadou Fall alquran mi sëñ Tuubaa soloon alquran ci Mauritanie mu ñëw mu ne ko kaay toog ci sama bopp di tari alquran waaye bul nelaw woo sëñ Mahmoud Diané ne ko kaay toog ci samay tànk di tari alquran waaye bul nelaw woo sëñ Mët Laam ne ko kaay toog ci sama wetu nday joor di jàng xasaayit waaye bul nelaw woo sëñ Mbay Laam ne ko kaay toog ci sama wetu càmmooñ di tari alquran waaye bul nelaw bi ñu xëyee sëñ Basiru ñëw ci barabu soxna si jàng li muy jàng ñaan li muy ñaan jóg yëkkati ay loxoom mu tiim ko mu ne Mouhamadou Fall mu ne ko Mbàkke mu ne ko barab bii fas naa yéene mu mel na Touba mu ne ko mel na ni sëñ Basiru na ko insha allah wala taqulanna li cheyin inni failun dalika gadan illa an yasha allah daal di am projet wu nag def poroxaan muy dëkk li mu njëkk a xalaat mooy barabu soxna si tàmbali di mool ay mool yu ko defaree 1966 suñ borom ñëw ko dogalam waaye mu bàyyi fi doom juy baayam muy cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu cheikh Mouhamadul Bachir rahimahullahu taala muy doom joo xam ne ki mu doon mooy kii laysa fata man yaqulu kaana abi innama alfata man yaqulu ha anada damoowul sëñ Bachiroo ma jur waaye fexe bay sëñ Bachiroo fexe bañ lo sëñ Moussa fexe ba poroxaan ñu godrone ko ñooro poroxaan ñi fa mujj a nekk rek fa la leen latérite bi fekk man fa laa jànge waaye ba ma fay dem am na ñu ma jiitu woon man te courant ba bàyyiwuñ ko fa man fa la ma courant ba fekk fa la ma godron ba fekk sëñ Moussa def ko muy siège u communauté rurale mu def fa école def fa dëkk defal fa soxna jaara kër ak barab bi indi fa ab kuréel ñu dëkk fa diggante bu gàtt mu gis ne soxna jaara bu doon ku fi ne ab jàngalekat lay doon ndax boroom xam-xam la ñu ko meññ ñépp ay woroomi xam-xam lañ sëñ Mouhamadou buso moo ko jàngal al alquran soxna astawaalo Mbàkke moo ko yar moo ko tarbiya tarbiya islamiya tafsir Mbàkke Ndumbe moo ko jàngal tafsirul quran ak xam-xam yi diine yëpp ci diggante boobu kon li doomi soxna war a xam lépp soxna jaara xam na ko sëñ Moussa gis ne kon soxna jaara bu fi nekkoon ab jàngale kat lay doon su dee jàngale itam faw ñu tudde ko ak njaboot te mbay ci sa wewu tànk su boobaa soxna jaara yiñ ko tudde te soxna si di seen bàjjan ñoom lay njëkk a tàmbalee jàngal mu daal di rëdd daaray maam jaara Cheikh Mouhamadul Mourtada ibnu Khadimu Rasoul moo teg pose première pierre bi le 5 mai 2005. ñu ngi ci deux mille dix neuf donc bu ñu amee dix ans bu ñu amee fukki at fukki at yi bu dee tagal ay weer lay tagal résultat bu wóor feeñ ci mooy lu toll ci ñaar téeméeri maam jaara mën naa ne diggante 5 mai 2005 ak 2019 bi ñu nekk mokkale nañu fa alxuraan lu toll ci juróom benn fukki maam jaara bind nañu fa kaamil sëñ Muntaxa daf ne nañu dellu ca asaala ba asaala ba mooy lan nañu roy seen bàjjan soxna jaara ndax kaamilu alxuraanam geestuwu ko da koo bind te xoolu ko kon lu weesu tey maam jaare muy bindati bu ko xool yàlla suturaal nanu daaw jéeg ak daaw maam jaare yu jot a bind kenn xoolu ci sa kaamil muy daara joo xam ne tey jii bi suñ boroom dimbalee sëriñ Moustapha an niya as saaliha as saadiqa bi nga xam ne am na ko mu yéene ju wér jooju te rafet bi mu sosalee maam daara jaare ji rek bi mu tàllalee loxoom àddina bépp a ko ci fekk muy daayira maam jaare yi tey jii ñu mën a gis ne daara yi maam jaare mooy daara joo xam ne weer wu dee argent liquide xaalis rekk ceeb bokku ci dugub bokku ci saabu bokku ci li ñuy dépensé ci liquidité ci xaalis egg na presque 17 million par mois loolu amul benn association féminine bu ko man sëñtuwaa Tuubaa rek la suñ borom dimbali ci lépp lu mu yëkkati yàlla yëkkati loxoom téyel ko ndax ku ne xam na ne poroxaan fu sori la soxna jaara tëdd fa waaye barkeb sëñ Tuubaa rotaat na ci kaw barkeb soxna jaara buso fa mu tëdd ndax booba ba tey loolu dëkkut jasakumullahu wa naa xeyran ba nii sëñ a ñëwee ñibbisi dollu ci li nga xam ne valeur ajoutée la muy parenage parrainage boo xam ne ndeyi daara wala bàyyi daara ci képp koo xam ne yàlla man loo na la ko nga mën a jël am maam jaara weer wu dee nga doxe joxeel ko ñetti junni ci sa wërsëg te yàlla tax loolu mooy parrainage su ko defee parenage bi dafay fekk si carte de membre yi nga xam ne sëñ Moustapha bàyyi woon na ko fi muy carte de membre annuelle bu ñeenti téeméer nga xam ne daayira maam jaar yi ñoo koy def loolu moo yore doxub moo yor doxub daara ji waaye parrainage bi da ko fekk si ngir li wolof di wax lu kenn man ñaara ko ko daq parrainage bi fekk si ko ngir jox carte de membre yooyu doole kon daara mam jaara jooju laa wax ne mooy daara joo xam ne tey jii niñ koy waxee sëñ Isaaka dana ko faral di wax pépinière la ngir ñitu ëllëg ndax daara joo xam ne boo dikkee li ngay njëkk a def mooy mokkal alxuraan ni programme bi tëddee ñetti at yi ci topp dañ lay jàngal sa diine ngir nga xam nooy jaamoo yàlla yeneen ñetti at yi am na centre de formation professionnel bu fa nekk boo xam ne xale yi buñ jàngee ba noppi mën nañoo am métier yóbbaale ko ndax bokk na ci programme bi sëñ Moustapha tëraloon mooy maam jaara mi daal su fi jógee mokkal alxuraan xam diineem am mécceem su ñibbee bu sëyee su sëyee suñ ko yoree mu mën a yor boppam suñ ko yorut mu mën a yor boppam te jikko yu rafet yi nga xam ne def nañu ko ci moom suuxat ko ba mu màgg su amee doom dafay inculquer waat valeur yooyu ci doom ji nga xam ne moom la jur ñu mën a assurer donc que su boobaa société yi ñëw ëllëg li wér te wóor mën nañoo gis ne ñooy gën biñ fi bàyyi fuuf ndax ñi leen jur loolu mooy projet wu poroxaan dafa guddi wax dëgg yàlla bëgguma xaabaabal nañ ma jéggal ndax waxtu wi laay njëkkanteel ak kilifa yu tedd yi fi war a jël kàddu ci turu sëriñ Cheikh Coro mi ni ma ko waxee ak sëriñ sëriñ Abo mi sëriñ Abo Madiane ndax ku ne gis na ne sëñ Cheikh Coro wax naa léegi sëriñ Bas Xujja ak sëriñ Basiru waaye jiitu na kenn ku ne xam na ne Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ak Cheikh Mouhamadou Bachir ni ñu demee woon moom mënee su ko waxtaanee ci benn jataay kon nag ñoom bu ñu fi dajee sëriñ Abo mii sëriñ Muntaxa yabal ko mu ñëw fi sëñ Cheikh Coro mii fekk ko fi kaddu sëñ Abo ak kub yónneenam ci loxoy sëñ Cheikh Coro mii lay mujj kon mbokk yi Poroxaan a ngoog dëkk bu enclavé la waaye dëkk la boo xam ne fu dara ne rek ka fa tëdd ko ko def moo ko def sëñ Modou May sàmm wax na ma ko léegi ci biti te lu am solo la nee na ma giléem yi may yóbbu màggal wala dara sax euh, nu mu tuddati ay croissant au beurre rek mburu muñ def chocolat laa leen di jox ndax dama ne leen yéen waru leen a bokk ak yenn giléem yi ñuy rey ci yeneen barab yi ndax fu fu lu baax nekk kii fi tëdd moo tax mu am loolu nag daf may fàttali li sëñ Abdul Hakim waxoon rahimahullahu taala màggalu Tuubaa jot sëñ dàkk im ne bas faal tànnal giléem yi fi gën a baax nga beral ma ko nee mu tànn ko mu ne ko tànnal nag yeeg xar yi beral ma ko nee mu tànn ko ber ko sëñ du ne ko lii moom lu yàgg-yàgg su màggalu poroxaan jotee na jiitu ji ndax ka ne foofa wër ta lekku des ku lekk dara kookaa ko jox wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa